woote bi rek mooy lu jëm ci réew mi euh, surtout ci tolluwaayu réew mi euh, waaye nag ci wàllu économie ndax ñun réew mi rek moom nu itteel ba tax na jamono ju nekk rek dañu bëgg bu ñu yëkkati kàddu mu doon njëriñ euh, ci réew mi. nag li sabab ñu yëkkati kàddu mi ngi jëm ci tolluwaayu réew mi waaye surtout ci wàllu koom-koom maanaam économie ku ne xam ne ni réew kenn mënu koo tudd te tuddoo lu jëm ci koom-koom muy économie ndax mooy tax ku mën di doon ci ñun ak ku mën di doon ci yéen. Euh, nga mën a am jàmm mën a dund dund gu mucc ci ayib. Euh, wàllu koom-koom boobu nag ku ne xam na ni euh, fi ñu toll xaw naa am nu mu demee ci yenn côté ba tax na président Macky sàll sax vraiment amal na ci ay jéego bu baax a baax a baax waaye nag am na ci ay côté yu mu dese nag ndaxte fi ñu toll ku ne xam na ni réew mi. ñu bëree bëri ci doomu réew mi ñu ngi gis nii ñu ngi jaar ci géej gi di dem Espagne wala ci yeneen réew waaye ñu baree bari tamit ñu ngi dugg ci yoo xam ni jàpp naa ni su fekkoon am nañ ci luñ jàpp euh, duñ dugg ci xeeti jafe-jafe yooyu ba mu leen indil ay euh, gàllankoor ba tax na kon euh, président Macky sàll ñu ngi koy taalal loxo surtout mu gën a teg loxo ñi nga xam ni ñoom ñooy chambre de commerce yi ñi jiitee chambre de commerce yi ak ñu yëngu ci chambre de commerce yi mu gën leen ëpp yi gën leen may doole ba tax na rek jàpp naa ni kon solution dana am ci tolluwaayu réew ci wàllu économie ndax ku ne xam na ni àddina bi koom-koom moo ko yor waaye ku ne xam na ne koom-koom tamit nag dafay am programme am ay orientation yoo xam ne mooy tax rek ku ku ca nekk ci ñun eh, di ci man di gis sa bopp. Euh, chambre de commerce nag fii ci Sénégal moom nit mënu koo tudd te tuddul président Serigne Boub euh, président Serigne Boub euh, amal ci ay jéego yoo xam ni vraiment fu nit man di nekk ci réew mi. teg nga ci sa bët am na ci expérience boo xam ne jàpp naa ni bu ko ci président gënee jàppale gën ko taxawu ndaw ñi ak ñàkkum xëy mi nga ne ñu ngi koy jàmbate fu ne di ko jàmbate nu ne. dana ci indi ak coppeeku ku baax a baax a baax man Talla xel Khelcom nag fii ma yëkkatee kàddu euh, muy département Mbacké surtout ci dëkk bu tedd bii di Touba ku ne xam ne ne Touba mooy euh, deuxième ville mooy deuxième capitale euh, deuxième capital ci wàllu économie sax ci Sénégal waaye dama naan Dakar sax li tax ñu koy tudd de première capitale dama jàpp ne rek Touba fekkoon lii Dakar am am na ko kon Touba mooy nekk première capital ndaxte vraiment Touba ay jàmbaar lan ay liggéeykat lan boo xoolee fi ñu toll dëkk bu tedd bi fajar boo jógee 5 heures du matin yaa ngi soxna yi di jóg di buuxanteeg nit ñi ci oto yi jëm ci place euh, yi ni daane seen doole waaye boo demee ci corniche yi nga xam ne mu wër dëkk bi da gis ñu ni woowee ay Baay Peel ñu doon ay jàmbaar trop nga xam ne ñoom li ñu gëm mooy ñàkk jariñu seen yitte yëpp rek mooy gis liggéey ba liggéey daan seen doole te fi ñu toll fii ci Touba Mbacké nag ku ne xam na ni wax dëgg yàlla euh, géej amu fi ba ni li fi am rek moom mooy euh, commerce li fi am moom mooy Euh, mbay waaye li fi am moom mooy càmm kon càmm moomu nag ak mbay moomu nag ak commerce boobu nag euh, ñenn rek ñoom ñoo leen ci mën a appuyer leen moom mooy chambre de commerce kon ñi ngi tàllal loxo euh, son excellence président Macky Sall mu gën a waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite chambre de commerce yi gën leen a jàppale gën leen a may doole ñun nag insha allahu danañ ci jokkook président Serigne Boub bu ko defee gën cee waxtaan ak moom bu baax a baax ndaxte ñun nag dañ ko soxla ñun fii moom ñun ndawi Touba surtout ñun ñuy yëngu ci wàllu commerce ñi ma ci waxtaanal ñëpp ñëpp ñëpp kaddu gi genn la mooy président Serigne Mboup moom soxla nañ ko trop trop trop ci wàllu chambre de commerce surtout sax xam nga Touba fi ñu toll euh, vraiment war naa mën a am son industrie war naa mën a am porfec ndax su ne war naa mën a am son industrie ak euh, porfek porfec bu ko amoon fi ñu toll lii di euh, lii di lii di Louga lii di Ndar lii di dëkk yi nga xam ne daal ci ab tënk ñoom ñoo wër Touba ñoo wër département Mbacké ay ay Gossas ba ci Kaolack fu mu ci man doon boo may conteneur Dakar au lieu que ngay déparé foofu dem Dakar fii rek ngay ñëw ci port fekk bi jël sa conteneur yóbbu kon loolu dafa am lu muy gisee ci wàllu économie. Euh, kon daal ñi ngi tàllal loxo euh, njiitu réew mi euh, président Macky Sall di ko xamal ni daal vraiment war na cee jàpp baax a baax taxaw ñi nga xam ne ñoom ñoo yëngu ci wàllu chambre de commerce yi. ginnaaw loolu jàllee document bii ma yëkkati moom mooy loi bi nga xam ni Euh, président Macky Sall moom moo ko defoon 2017 euh, mu doon décret boo xam ne mu ngi ko jaarale woon assemblée nationale muy loi 2017 bi nga xam ni euh, am na yu bëree bëri yu mu ci tënkoon lu jëm ci wàllu chambre de commerce yi yu jëm ci wàllu zone industrie waaye yu bëree bëri yi nga xam ne xaatimoon na ko ci am na ci yu bëree yoo xam ni wax dëgg yàlla ba tey mi ngi ni tekk tekk jooju nag xamuñu lu ko sabab kon son excellence ñu ngi lay xamal ni daal bari na yoo xaatimoon ci document bi Euh, jaarle ko ci décret mu jaare ensemble national waaye bari na yoo ci euh, xaatimoon yoo xam ni ba fi mu ne nii daal mi ngi ni tekk tekkaaral euh, fi ni wàccee sunu kàddu nag mooy président Serigne Mboup gis nañ ñu jógee président Macky sàll trop di ko gàllankoor ak di ko fakkastal loolu nag ñu ngi leen xamal ni moom du jàll ndax président Serigne Mboup bu dul dara sax dafa doon doomi daara doon koo xam ne kenn mësu koo jàpp ci ak njuuj njaaj kenn mës ta jël sa baaram joxoñ ko baaraamu tuuma muy nit ku jub koo xam ni ñun ñi nga xam ne yàlla dafa def ñu yoroo ci daara doon ay dongee daara ñun suñ idole la suñ royukaay la lépp loo xam ne ma nga ca ñun waa jeunesse bi euh, ña nga ca ba tax na kon koo xam ne ko jéem fakastal bu jaba nga xam ne sa bopp ngay fakastal te duñ la ci bàyyi kon nag euh, bëri ko ci mbartal moom euh, ba max mu dem ñàkk ba mu dem comme président Serigne Mboup fan yi ñu génn rek bu yàggutoo dara dégg nañ ma Mouhamadou Mountakha yëkkati ay kàddu yu am solo jëmale ko ci moom muy kàddu yoo xam ne da koo soññiwaat bu baax a baax moom président Serigne Mboup waaye da koo gën a dolliwaat doole waaye gën koo encouragé waat kon daal ñu ngi ñaanal baax a baax Cheikh Amadou Mountakha di ziyaar kilifa diine yëpp waaye daal ñu gën a ñaanal président Serigne boobu te xam ne yéenam ci réew mi weesu na fi ñu toll nii fii mu toll yéenam mooy amul benn ndaw boo xam ni da nga jéem a wuti visa jéem a génn ci réew mi ngir wuti ay ay ay ay ay yitte feneen ah, taddu rek la ngay wuti am na fii ci réew mi kon euh, président Macky Sall euh, ñi ngi koy ñi ngi koy ñi ngi koy fàttali euh, chambre de commerce ak ñi ko jiite mu gën leen a jàppale gën leen a may doon ndax moom mooy kilifa ak ñëpp bu neexoon tey jii jafe-jafe yi réew mi jànkonteel ci ndaw ñi bu jeexul tamit mën naa soppeeku bu baax a baax te président Macky Sall bëgg-bëggam bépp mooy euh, ndaw ñi euh, am xëy euh, am xëy googu nag mënta am te jokkuwut ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yitte chambre de commerce yi waxtaan ak ñoom waaye nag ñooñu kenn jiitu wuti président Serigne bi nga xam ne jàmbaar la te day jëf te du wax jëf lu bari wax tuuti laa koy wooye muy jàmbaar trop. comme ni ko Talla waxee rek ci wàllum koom-koom wàllum chambre de commerce rawatina Touba bi nga nekk nga xamante ne nii secteur moo fi gën nekk. comme comme bay bu mu wax comme comme commerce bu mu wax te loolu munuñu ko wax te duñ tudd chambre de commerce yi loolu loolu ci biir chambre de commerce la nekk waa chambre de commerce ñoom ñoo koy euh, ñoom ñoo ci nekk di ci liggéey kon nag dañuy ñaan suñu président de la république muy Macky Sall mu dimbali ñi nga xamante ni nii ñoo nekk ci chambre de commerce yooyu noonu dooleel leen ba nga xamante ni nii jeunesse bi ñu bëri ñoo xamante ni nii amuñu xëy dinañ am ay xëy te loolu nag lu ko luy waral sax jeunes yi di génn di dem ci euh, gaal yi di xam nga di def ay ay ay catastrophe yoo xamante ni mënoon na ñàkk peut-être ñàkku xëy bi am ci Sénégal mu metti loolu jeunes yi bëgg liggéey mu mënu amuñu ay liggéey amuñu ay poste yoo xamante nii mën nañ fa nekk te am na ñoo xamante ni dañu jug ci loolu naturellement comme ni ko Talla waxee Serigne Mboup mi nga xamante nii dafa jël initiative boppam pour jàppale ndaw yi kon nag ñooñu dañ leen a war a dooleel monsieur le président monsieur Macky Sall ñu ngi ñu ngi lay ñaan pour nga jàppale ñi nga xamante ni nii ay bonne volonté yenn ay bonne volonté yoo xamante ni dañu jug pour jàppale ndaw yi pour ñu xëy nga dooleel leen ñu teg leen seen place ñu xam ni ñii ay nit ñu dara jàppale lañ parce que Sénégal bëri na y a des multimilliardaires yoo xamante ni amuñu sa xel boobu juste dañu toog noos lekk seen xaalis mais am na ñoo xamante ni nag seen xel dafa dem ñu ñëw jàppale la parce que président de la république mënul lépp mënul satisfaire lépp mënul satisfaire toute la population il faut mu am ñoo xamante ni dañuy nekk ci ginnaawam di ko jàppale te boo amee ay nit ñu lay jàppale kon nag yow tamit da leen a war a gestu wan leen ginnaaw